Euh, bisu yërmande bisu njéggal euh, yal na ci yàlla boole ñun ñëpp waaw daal la la laa ci xam li ci desit mooy li euh, sëñ Moustapha Abdou Khadr wax sëñ Cheikh Gueye wax ko itam ci waxtaanam maanaam ñu fexe ba réew mi daal jàmm ak dal sax fi dàkk waaw loolu moo ci ëpp solo. d'accord gis nga am itam depuis boobaak léegi gis nañ li xew Ngor li xew démb Yoof tàngoor itam euh, euh, lan nga ñu mën a wax ci loolu. Euh, société bi ci boppam. Mhm. Sénégal mhm. moo jaxasoo. Mhm. ñi ñi yor mbir mi. gaw ma ne dinañ ko mën a lijjanti sax bala nga mbir ba nga koy lijjanti da koy xam sax far. waaw mu ngoog. feebar yi daal dafa xóot lool lool lool lool ah, moo tax pour ñu man koo saafara moom eh, yombut il faut mu am ñoo xam ne dañu koy dañ koy xam dañ koy xam xam xam boo loo xamul mënoo koo lijjanti dañ koy xam jëkk ba noppi nag am ak dogu ak aku takku ci lijjanti ko ah, loolu nag njiit moo ci am solo parce que ki njiitu bu taxawee ni mu war a taxawee pour mbir yi lijjantiku day yomb lool waaye boo ci boo ni taxawee wut nag moom day jafe. d'accord waaw euh, Farba Ngom ban message nga koy wax moom itam ginnaaw ba ñu taalee këram démb. xaw ma nag nu mu demee. vraiment xaw ma tellement problème bi nu mu demee xaw ma sax lu tax nga tudd ci Farba Ngom. lu xew dañoo tudd. taal këram démb këram gi nekk Ngor. waaye loolu nag mënu ma wax dara xaw ma nu mu demee. xam naa ne daal. Euh, bu dee ay difficulté lu am yu am ci diggante citoyen yi am na ci ay yoon yu ñu ko war a mën a jaare euh, pour lijjanti ko euh, ci jàmm ak salaam su fekkee loolu amut am na ab responsable bu tax loolu am responsable boobu nañ ko pini loolu rek la